tomb bi ñuy fàttalante dañu koy teg ci benn tomb euh, ñun ñëpp xam nañu ne bu ñu tolloo ci fan yii ñu toll ci at muy bëgg a jeex atum ñu mën a doon ak atum lu mën a doon nag at moom fa suñu boroom nee na mooy fukki weer ak yaar yu nekk bu ñu tolloo fii dañuy gis ne dañuy woote ay xew-xew yu bari yoo xam ne ya cay gën a ràññiku day mel ne day fàtteloo nit ñi ne am at jàll na ci suñu dund ndax am at bari na walla bariwul lu bari la bis yi nga xam ne moom la ñuy yendu di ko fanaan moom la ñuy lim ba mu mat weer di ko lim ba mu matum at at yooyu lañuy lim banaan naan diw am na fi téeméeri at wala sax ñuy jël misaal ci sayyidina nuuhin alayhi mi nga xam ne yàlla nee na yónni na ko junni at yu yées juróom fukki at juróom ñeen fukk juróom ñeen téeméeri at ak juróom fukk day mel ne ku fi yàgg la waaye lam fi yàgg yàgg mel na ne ku fi musoon a ba mu demeek léegi moo gën a yàgg fuuf lam fi jotoon a mu mel ne nag bu at mi bëgg a jeex rawatina at mii nga xam ne moom lañuy ñuy wàññi ba ren di ci ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett day mel ne moom buy jeex moom dañ ko war a gunge ak sigré bokk yi bu ñu xamee ne yàlla sàkkal na nit ku nekk bis bu mu fi bàyyi day mel na bis bu ñu yandu fanaan rek gën nañoo jege dig booba te digg ba du fomm li dem gi bari bari ñi seenub dig agsi rek ñooy dem waaye nag bu ko ne jàppee ne moom ki muy gunge nii tey moo ci topp ëllëg àdduna mën na ko bañ a bett kon nañ xam ne am at a nii mu jàll moo xam ne kenn xamut ñaata lañ ñu fi wax ne jóge nañ fi nañ xam ne seenu yaafus leen a dem nun ñu fi nekkit suñu des fi du suñu njàmbaar waaye bu ñu delloo gannaaw tuuti ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na doomi sayidna omar radiallahu anhuma nee na yonent bi jàpp na ci mbaggam bés loolu bu ñu koy wax day mel ni lu musoon a am te nee na yonent bi moo jàpp ci sama mbagg ne ma yaa abdallah ma ne ko yaa rasulallah mu ne ma àdduna mbaa jàppewoo ko ku fii sax ma ne tekk mu ne ma baye boo nga jàppe ko day nii ku jaar ci aw yoon rek di dem bokk yi ku jaar ci aw yoon yoonu nga jaar ci ab dëkk dëkk ba leer naññ rafet lool xumb lool bu mu ko yitteel ndax dëkk bu tax ko jóg dafaa jaar di jàll rek nee na ko jàppe loolu ndax fi nga fay paasam ak góo li nga war rek moo fa jaar nga ne ko noonu nga jàppe àdduna ka annaka garib kun fi dunya ka annaka mooy ab doxandeem rek ci ab dëkk lu dëkk ba naat naat taxu ko fa jóg taxu koo jóg dafaa jaar rek aw aabiru sabil wala romb ab dëkk di dem rek Abdullah ibn daana faral di dénk njabootam naan leen boo nekkee ci ak ngoon loo ca war a def bu ngoon jotee loo ca war a def bul ne naa bàyyi ba suba ndax xamoo suba nu muy ñëwee boo xëyee it loo war a xëyee xëy ca bul ne naa bàyyi ba kër gi sàdd loola it daf cay firi waxi yonent bi mu wax ne def leen fexe leen ba màng juróom balaa juróom dikk juróom yooyu moom la sëñ mag bi way ab xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mooy boo doonee gone toll ci sa digg doole ak ndaw loxo boo tàllal mu tàll tàlli tànk boo tàllal mu tàlli boo bankee mu bank bu loo neexee ne ñokket te doo daal fenn bu loo neexee àgg suuf te doo laal fenn nee na gaawal def ca la nga ca war a def ndax wér ak dañooy ànd léegi tey rek mu tàmbali naan wóomam yi ak tànkam yi walla gisam bi kon ba ngay gis tarsiku ci say gët gaawal xool ca la ca war a xool rek boo amee ak wér yit ci ak ndaw wér ga ci boppam gaawal def ca la nga ca war a def rek ndax wér ndaw dana ko def mag dana ko def waaye wéri di wér goo gis ak wéri dee ci mën a topp kon gaawal def ca la nga ca def balaa wéri dee dikk ñetteel ba mooy soo yoree astuut te wut ko ni nga ko war a wute ba am ko gaawal def ca lu baax la nga ca war a def ndax am ak ñàkk ñoo fi nekk lu ci ne dañuy wuutante yàlla moo ne min kulli shay'in xalaq naa zawjayn ñeenteel ba mooy jamono ji ngay am jot gaawal balaa ñàkk jot a dikk su boobaa soxla yu jëkk ya bëgg a fekk yu mujj yi bëgg a fekk yu jëkk ya wala yu jëkk ya bëgg a fekk su mujj du sotti waaye ba mu ko juróomeele mooy dund gii nga amagus néew tey gunge saa su nekk ñu fi bàyyeekoo di jaale ji nanga xam ne boo nee sigg leen diggaale bu ñu siggee xool la it bis dana ñëw moom la benn borom xam-xam waxoon ne euh, ba muy wut soxna la ko waxoon ay ay bayit yu gudd la way yu gudd la mu ne daa tàllal alal soxna jigéen ja tàllal nangu nee na mu jooy ñu ne ko loo jooy mu ne damaa xam ne tàllalam bii mu tàllal ma teg ci balaa bankaat loxoom daa jël wàllam ci sama miraas mi ba noppi te moo ne ñaan na yàlla yàgg gudd fa nag moom lool ba jaboon moo tax nañ gaaw def ci suñu dundaku si néew liñ ci bëgg a def balaa faatoo dikk moom la suñ mag wax ne waxtanimu xamsan qubaylal xamsi kama bihi amara xayrul insi alayhi afdalu salaatin bi salaam fi alihi wa saxbihi alxurri alkiraam أولها الشباب قبل الهرم ومثله الصحة قبل السقم ثالثها الغناء قبل الفقر ثم الفراغ قبل شغل يسري خامسها الحياة قبل الموت فسارعوا للخير قبل الفوت gaaw leen def lu baax bala moo weesu ndax bokk yi ndaw googu ñu wax yàlla wax na ko ci alxuraan ne nit ki bu ko bi ko yàlla bindee day jëkk a néew doole lool lu mën dañ ko ko mënal ba yàgg muy mënalaate mënalaate googu nag lu nit ki gudd gudd fan du yàgg day delluwaat fa mu jóge woon lu mën dañ ko ko mënal moo tax bu am at jàllee liñ ci war a dégg rek mooy ñun suñu digg gën naa jege suñu digg nag bu gënee jege mooy dañuy génn àdduna mel ni fuñ jaar jàll rek kon fañ jëm fa la gën a yàgg fa la ñuy sax ba faw sax gañ fay sax nag yaari kër fa am yàlla na ñu yàlla dimbali bañ dem ca fa nu gënal muy aljanna moo tax am at bu jàllee benn nga mën a yëkkati sa loxo ne man la ma ca war a def def naa ko ca la ma ca man sama kam kàttan di réccu nag ba xam dana dellusiwaatam déet su fekkee nag waa ji moo gën a xam boppam ñépp xool na xool xool at mi daal xamut lu mu ci def ci lu baax daanaka taxut bunt bi tëje na tuub rek ci sarti tuub yi daje ñu ne tuub na moo tax ku am tuuti li ñuy wax mustaqbal moom la ñuy wax fi euh, avenir niñ koy natte nee nañ mooy koo xam ne at yim amagun sañ ne ko yaakaaraat nga nañ ko am na avenir koo xam ne at yim amagun ne ko yaakaar ndax gis nañu dund ko ba tey kooku am na avenir bu mu ko yàq bu mu ko yàq <coughs> gannaaw xamul kañ lay dem na ko wóor ne ndund si ko yàlla may lu cher la loo xam ne bu doon jaay dana fekk mu jar bu yàgg kon bu mu ko yàq rikk moo tax bu at jaa jeexee nit war naa xool lim amagun wàññi ko ci baaraamam baxam ay waaraamam baxam ñaataa ko war a dese yàlla rek ko xam waaye nam cay def mooy buy dikk du ko bett junj naa ko at yam jot a am ñaata at la nelaw lépp ay guddeem ñaata at la fo ci ak dundam ñaata waxtu yu julli ñoo ko faat loolu ku ne mën na koo xamal boppam yàlla xam na ko mu xam ko waaye mën naa xam mën na gën a xam ni tey fàttaliku jamono ji nga xam ne nit ki daa toll ci ixtidaar di waaj dem di séen ña mu leer nañ ci kanamam muy geestu loos wi të euh, geestu aw loose koy def waaye fi naan jàkk ja daal mooy fa mu jëm muy gën di leer ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa a ngi nii bu fekkee dem na ba àgg ci di yëg waajtaay woowu ngal la ñun kon ba fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tolloo day euh, waxu fa dara lu ñu koy nettileel saaligut ni ko nit ku ñuul di defee léeg-léeg nga xam ne su ñaawee njot ci boppam rek daal di wóolu njaboot gi di dénkaane naan dey nax yàlla am na ñoo xam ne dañ naan leen saaligal rek muy wax lu mu bëgg ak lu mu bëggut lépp loolu mooy salik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dundam gépp deeru ci fenn fu muy salikee waaye ba mu tolloo ci diggante boobu nee na laa ilaha illa joo xam ne am nañu ko dégg ñu bari mu ne ndekete yoo dee moom am na waajtaayut mu mel nii la muy xam lépp foofu moom ku fa jarut du ko xam bu ñu fay jaar nag yàlla na fekk ñu nekk ci li sooboon suñu borom ak ndigalam moo tax ku at romb rombaat ko rombaat ko bum ko def mbégte na tuub rek te bàyyi niig niigal niig niigal mooy naa bàyyi ba naaj bu naajee mu ne naaj wi tàng na na bàyyi ba kër gi sedd bu kër gi seddee mu ne guddi na bu guddee mu ne wóorul loolu ku ne mën na xam boppam moo tax dund si yi ñu yàlla jox ko si néew li ñu tudd amaana la yàlla daf ñu ko dénk ñu war ko ko delloowaat bu ëllëgee nag luñ ca defoon dañ ñu koy laaj loolu wax yént bi sallallahu alayhi wa sallam nee na juróomi ngi nii yoo xam ne kenn du jéggi ab jéega yomal xiyaama di dox jëm fenn te yàlla laaju ko juróomi yi ba ci jiitu mooy sa dund gi ci loo ko jaaxaloon ci lan muy lim fu mu taxawoon def fa lu def dana ko tudd ñëpp dégg yow ma tub la sarair mu def fa lam war def dana ko tudd yow ma tub la saraayir wax ba àggal ñenn ñi ñee ko lool ndax dundam gi dund ko barkeel la ñenn ñi jàq lool ndax xam nañ ne lii muy wax ñoo ko bokkale te léegi de seen ay dikk ak dundam lu mu ko jeexal an umrihi fii ma afna waaye ak ndawam ci lan la ko ràppal bi mu doonee ndaw di sànni ay tànk di sànni ay loxo lu mbir sew-sew mu mën koo xool lu ab yax rëy-rëy mu mën koo yëy di lekk léegi di soxlawaat lekk léegi di yeew di nelaw ko jóg ak tàngal aw yaramam danañ ko laaj ba xam sa ndaw googu ci loo ko ràppal ba bi ngay tëlee loo doon def ati ndaw gi li muy néew ne loolu la nga ci jot def wa an shababihi fii ma abla ak alal ji nga yoroon di ko saax-saaxee moo xam mu néew walla mu bari saax saaxee mooy di ko def ci lu ko jarul rek alal jooju foo ko jële woon mu ne barab sàngam ñu ne loo ci jot a def mu wax loolu it taxawaay boobu lu mat a bàyyi xel la ci ku fa toll wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa waaye lam xamoon na ko si néew ana lu ci jot a def xam-xam yëmut ci jàng téere yi kese waaye borom métier ak métier mu mën a doon mu diine nangu yàlla danaa laaj waa ji ëllëg sa xam-xam boobee ana lu baax loo ci jot def ak leneen loo ci jot def muy wax ci kanam nit ñëpp yàlla nay lu baax rek moo tax Abdullah ibn Mas'ud nee na moom daal waxuma la at di jàll muy réccu ak natt boppam waaye réccu dara lu dul jant bu fenk ba so mu xool xool xam ne digg ba mi ngi gën di jege si jant ba moom rëccu na lu teewoon mu yóbbaale ko lu bari waaye rëccu na yi lu teewoon mu def ca la mu def ca la mu ci jot a defal baax ak lu sax mu yóbbaale ko ko nee daal bu amee lu muy rëccu jant bu fenk moom day rëccu ma mu jot muy rëccu la mu doon def daaw moo tax bu ñu laajee ci suñu diggante kenn ku nekk digganteem ak saa bu déggee hayya ala salaati hayya ala falaa lu muy def ci moom ñuy nodd lu lan lay def ci moom bokk yi bu ñu xoolee <clears throat> nodduk fajar léegi léeg ñu nodd ko waa ji yeewu ca ne jar waaye day xoolaat montar bi mu des mu ne ah mën naa fee fëkkaat bët bala ñëw salaatu daat ne far gay jant bi na dàng woowu waxtu moom jàll na te du ñëwaat wu ne mel du amaat moroomam mën naa ñëwaat waaye woowa jàll na moom te bu ñu xoolee kii noddi waxtu muy jógee këram di dem ci jàkka ja ak lim mën a taseel ci yoon wi yëkkati kàddoom ñëpp di ko dégg ñëpp ne tekk muy wax ci kaw boo koy ku xool noddukatu fajar dootoo tala nelaw moo tax julli bu nekk war nay xool bu ñu ne xay yàlla salaa yàlla falaa jooju mu dégg newuñ asalaatu xayru mi an nawm nga xam ne julli suba jotagul bu fekkee lam fa xalaat mooy ñoddiwaat mbalaanam rek kooku war naa seet boppam <clears throat> moo ne téewul de da gis mbedd yi ak yoon yi xat lool ñu jëkkante kenn ku nekk bëgg a gaaw a jàll moroomam te jëm dëkk sàngam rek wala ci avion sàngam bi war a dekole léegi waaye doo gis ku ñu taxaw ci buntu jàkka yi di xat-xatloo ñu ubbi ñu gaaw dugg te moo ne duñ la laaj yoon yu gaaw yooyu nga daan yi dañ ko yeex a laaj yéena ji jëkk xool boo xam loo tax a jóg waaye kiy dem di xat-xatloo ci buntu jàkk ji fekk ñi ngi ubbi mu gaaw dugg moom xam nañ la mu fay wuti ñépp mën nañ koo seere te nag kuy bëgg ñu di ko seeral ëllëg nay def lu baax sa di ko wax rek <coughs> moo tax kuy big ci bis bi mu gënee woon àdduna xamul na bis boobu moo koy indil weer yu bari weer yooyu moo koy indil at yu bari at yu bari moo koy wammat bis bu set di ko gën a jegeel bis bi muy faatu moo tax at mu jàll yàlla day ubbi buntu tuub ni mu koy ubbee bis bu set tuub nag mooy réccu la ci jiitu mooy réccu xam ne fi mu teg tànkam du fa mu gaaw teggi ko te fas yéene dutu ko fa tegaat mukk am na daal yu bari yu ca aju yoo xam ne ku dem ci waroom xam-xam bu ko laajee dana ko ko leeralal waaye ku ne a xam boppam moo tax yàlla ne woon ci alquran ya leen tuub tuub gu set tuub bu nga delluwaat ca nag wala at mu jot mu tuub delluwaat ca taxut ñuy wax tuub mooy da koy réccu dootoo ko def mukk ba faw dellu ci teg yéen ñi nga xam ne seeni xol a ngi dund dee leen dëkke tuub rawatina at mu jot wa tuubu ila llahi tawbatan nasuha wa tuubu ila llahi ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun kon am at a ngi ni jàll na mën nañoo li ñun ci suñu bopp suñuy moroomi jaam lan lañ ci nekke wa waaye moom nag ma dem moom ma ñuy xaare ëllëg mu ñëw ñu ñëw mu wax lam nekk lañ nekke woon ci moom shahidun lana aw alayna lanaa nag mooy la nga ci nekk woon lépp nga mën koo wax fépp yaakaaru pay naa nag moom muy jot jot jabet jabeti di wax li nga nekk woon ci moom wut ay bant di wokk ak ndong ak a capp cappal di ca amu yoon yàlla nunu ci musal moo tax mag ñi dañoo teeloon a xam àdduna euh, sëñ Falilu Bakke bi muy martial Maam Mor Jaara dafa ne àddunaa ngi nii de su la bégloo cib jant ba ngay xàqtaay ak a tàccu ñu ne lum doon nga wax ñépp béglale ko ca guddi ga rek mën na laa indil naqar woo xam ne yaayee ñëpp moo tax alquran ne woon fal yadxaku qalilan wal yabku kathira kuy ree bu mu kekku na muuñ rek te gaaw fas kanamam mel ni kuy jooy ndax bànneexu àdduna naqarama ko ëpp fuuf ndax bu ñu xoolee fukki at ci gannaaw rek euh, Sénégal gépp ñi ci seeni xol dund te bëgg lu baax xëyee nañu suba goo xam ne gii euh, kenn du ko fàtte te booba ak tey jii mën na fukki at ak benn muy bi fi Cheikh Saliou Mbacké bàyyi ko nga xam ne moom su nit ñi daan xalaat ba jub ko dañuy dëpp ndax defe nañ ne ku Sëriñ Tuubaa meññ ak jógeem ci kaw suuf moom mënta am waaye keroon nag la xew muy bis bu lëndëm loolu bu ñu ko dee wax day mel ni démb dong la te moo ne fukki at ak benn jàll na yoo xam ne ñu ngi ci gën di jege ak fekki ko donte day ñaan yàlla yàlla na gën a yàgg nag yàlla na yeex yàlla na ko yàlla fay ñu teg ca yett ba jëm ñeent tuuti yaar ba yett ëllëg baara mi dëkkoon fii moom itam dem topp ca sëñ Sidi Muxtaar moom it ci fan yii lay amam at mu mel ni démb la ndax tiis ga ak metti ga kon bokk bokk yi ataw noonu moo doon ñëw bañ ne Sëriñ Tuubaa bi mu fi jógee léegi juróom ñeent fukki at yu teg am at la 1927 ak léegi juróom ñeent fukki at nga xam ne ku ko fekke woon te xam ke dara sax jafe na ku ko fekke te mën caa nettali dara moom mel ne mën saa wax ne amatul ña ca topp topp ca ba yi nga xam ne borom at yu ndaw yi fekk nañ ko te di ko fàttaliku ba léegi kon boog ñii fi des ñépp yàlla nañu fi gën na jàng ak nun ba mu ne suta fàtte yi xew ci at yu mujj yi mu ne su ko fàtte waaye ñu dem ba xaw ko miis ndax suñ saliwu moom ma tudd léegi am na kenn ci njabootam ba ay bokk demee di ko jaale ji daf ne moom day fekke na fi ñu mel ni sëriñ Saliou ñu bari ñu fi bàyyi ko fekk na fekk na ko te xam ràññee waaye lan doon dalal am xelam mooy ku fi bàyyi ko rek ci ñoom la may dalal am xelam mooy ña ña ca des ñu ngi fi waaye nag ba fa Serigne Saliou sësee moom nee na am xelam du nangu du ñemee jàdd du ñemee jàll moo dal ñépp amul kenn ku ñuy xalaat koo xam ne danga naan bu fi bàyyi ko yàlla koy def moom mi ko sañ rek xel door caa dem moo tax ku yàlla dimbali mu mën a nettali tuuti lu mu fekkee war naa bokk ci ñiy lay ci seeni at seeni at di bëgg ndax kóllëre ga yàlla boole woon ak ñoom def nañ ca lañ ca mën a def sa bañ a bokk ci ñi yàlla di wax ne am na ñoo xam dañ leen a jox at yu bare bare bare bare bari luñ laaj yàlla mu jox leen waaye taxul ñu def dara nag afa raayta in mattaanaahum sinina thumma jaahum ma kaanu yuaadun ma agna yàlla noonu ak topp te fekkeloonu ko ay ati at te yàlla nañu yàlla dimbale ba ñuy gën a waaru ci at yi nga xam ne day ñëw di dem te mu ci ñëw rek yàlla nañ ca mën a lay te yàlla bu mu layoo ak noonu am na nag ñoo xam ne dañoo say dégg ku faatu ak bàmmeelam doon nañ ko fàttalante keroog ku faatu ak bàmmeelam loolu suñu boroom dafa jiitu ci ay waxam euh, bàmmeel ku dem ci alxuraan da nga ci fekk mi wax melokaani bis pénc mu ngi wax naan ida shamsu kuwirat eka topp topp ca ida sama un fatarat li ca topp topp ca ida sama un shaqa ba agsi ci ida zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yowma idin tuxaddisu axbaaraha mooy li ñuy wax ne bi ann rabbaka awxa laha mooy bis bu yàlla joxe ndigal suuf mu génn lam yoroon zilzal zilzal fi mu toll nii réew yi muy xew ñu naan suuf sa daa yëngu ku ne gis na la muy àndal ci ay musiba yàlla nañu ci yàlla musal moom la ñuy wax euh, earthquake wala terremoto nga xam ne day jékki-jékki ne dag dag diir bu gàtt ay seconde lañ koy calculer la muy yàq ci ay alal kenn xamu ne mi toll ak la mën a yóbbaale ci aw nit yàlla nag nee na moom su boobaa day jox suuf mu ne rëg rëg rëg génn la dëqoon lépp la wan noonu lépp mu génn ko loolu baykat mën na koo xam ñu ngi dëkk ci kaw gi xam nañ loolu xam nañ ne ku ji su amee ñaari fan ba ñetti fan boo demee taw ba mu mu nar a sax da ngay gis suuf si xar la nga jiwoon tàmbalee génn loolu lu yomb ci suñu borom la yawma idin tuxaddisu axbaaraha su boobaa kenn ku nekk lam defoon doona ko wax waxtu yeeg at yeeg mboolem lu ma sa xaw ci kaw suuf rek moo xam mu dem at mi may wax nii at mi day wax la xewoon ci moom diwoo def nangam diwoo def nangam weer wu nekk waxtu wu nekk barab bu ne su boobaa nag yawma idin yasduru nnaasu ashtaatan li yuraw li yuraw amalahum su boobaa nag nit ñi par kenn mooy génn yàlla daa jëkk daa daa tudd génn gi tudd dugg ki ñun dugg la ñuy waxtaan naan ku nekk ak bàmmeelam waaye yàlla lam wax moo gën a moo gën a kawe loola fuuf ndax moo gën a xam ñëpp du xamante kenn sax waxin la waaye moom fa ñuy mujj la wax bu booba kenn ku nekk mooy génnal boppam fañ ko fa ko nit ñi suuloon yawma idin yasduru naasu ashtatan par benn benn ndax lan li yorow amaalahum ñu wan leen lañ doon def fa man yaamal mitqaala daratin xayran yara ku fi jëfoon ci kaw suuf waxuñu am at mi ñuy fàttalante waxuñu ay weer waxuñu ay bis waaye ku fi defoon lu lu toll ne euh, fepp salgoof fepp salgoof am na ñu neexuti bari ñoo xam ne mënu leen ko gis ko nee na bu dee lu baax la waaye yàlla dana ko woon mu gis ko wa man ya'mal mithqaala darratin sharran yara keneen ku fi def lu leneen te tuubu ko ba faatu tam toll ni fepp salgoof it lum naqari naqari ay gët yàlla dana ko ko woon ba mu ne jàkk xam ne moo ko daal